waaw cheveux naturel moom kenn ku ci nekk accessoire kenn ku ci nekk accessoire waaw yàlla moo bind ñépp moom jaam ñi te newoon na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bul oria bul boo orienté nit ñi ba noppi bu leen topp nag di leen sëkkatal waaw nit ñi da nga leen di bàyyi ak seen libéré waaw nga libeere leen ni nga leen di libéré ci say poos libéré leen ci seen xel noonu nga leen di libéré ci seen i jëmm am na góor ñoo xamante ne bu seen takk bu seen soxna takkul sa naturel gisuñu dara am na góor ñoo xam bu seen soxna solul jasneer gisuñu dara mais am na koo xamante ni bii jënd kol gu 2000 francs moo ko gënal jasneer waaw am na koo xam ni jënd kol gu 2000 francs gi jabaram muuroo moo ko gën a neex ka soxnaam jël sa fa naturel takk ci kawam waaw waaye nag nañuy bàyyi xel sunu soxna yi waaw wa jaala baynakum ma mawaddatan wa rahma la alquran wax yàlla nee na na nga leen leen yërëm te ñoom it ñu bëgg leen ki bëgg ak ki yërëm ñoo mën a ànd te tabax si gii am na góor ñoo xamante ne bi jëndal leen seeni coro cheveux naturel ñaar fukki junni seeni gel seen ndey kilo soble jënduñu ko kilo soble kilo yow mii di yow mii di commentaire laay wax yow kilo soble jëndaloo ko sa ndey ba pare taxaw di commentaire te jëndal gel ñaar fukki junni cheveux naturel lu ko jar nga leer na la ni sa sëfa boobu sunu borom mën na la cee duma ëllëg fi mu doon safe nga jëndal sa soxna sëfal naturel wala nga jëndal kii la yàlla booleel muy sa gel sëfal naturel ba pare dem yeewal sa yaay am xar wala nga yeewal sa baay am xar waaye nga jëndal jigéen sëfal naturel ñaar fukki junni wala fanweeri junni bëlbatiku naan sa baay per per xar mi nga jën dafa ndaw yow amoo jom amoo jom waaw te yaakaar naa gis nga nit خالي داي باي خيل بوبم بن شاعر رفني بادر بخيري اذا ما كنت مقتدرا فليس في كل عين انت مقتدرا نينا غاول بروفيتول سانداو نخ ماك داي ديك واو بروفيتول سانداو نخ ماك داي ديك واو كون داوي بني دوند نيو اوت نغيرم ويجوري لي نكومو نخري داغا امو سا نغيرم نياري ويجور واو تا نغيرم نياري ويجور لو جار ساكولا yonent bi moo ne rëddal laay fi rëddal waalidayni suxtu laay fi suxtil waaliday ngërëmal yàlla mi ngi ci ngërëmu ñaari wayjur waaye sàññum yàlla ak jippim yàlla mi ngi ci merum ñaari wayjur yow looy commentaire sa ndey gërëmu la sa baay gërëmu la ngay commentaire lan la waa gi nga góor war naa am xel Aboubacar ni muy amee xel mooy bi la yàlla bindee daf ni yàlla daf ni penseurs yi laay waxal penseurs yi xalaatkat yi wa taqu ne yaa ulil albaab waaw yàlla nee na yéen ñi penser yéen xalaatkat yi yow nan nga mën a liggéeyee weer fanweeri fan yi lëmm ngay xëy di wàcc subaak ngoon guddeeg bëccëg amoo dara looloo loo jëriñ lu dul faye ko sa fanweeri junni dem jël ñaar fukki junni yi jigéen jëndal ko jigéen sa fa naturel yow luñ la yow luñ la teg dagan na waaw jigéen ñi gin nga mag lu mu nangu ñu teg ko ko dagan na mag lu mu nangu gi nga jigéen ñi di di maraan man balaa meew ma leen de nañu maraan ku maraan lu kay ñu la. gis nga goor ñaaray waral ñu mbalan ko mu bari tiitër ak mu bëgg sat kep jigeen ñu ko amul ndariñ def ñok yow nen ku amul ndariñ def ñok yow nen kep, kon nak yow mi liggey ba weer nga yor sa alal war nga xalat fenen foko def fudul di dem ñu lay mbaraan di la nax waaw jaaduwul waaw jaaduwul yow mii xoolal fan ngay xey suba ngon guddeeg beccëk ñu lek sa alal ci ay minute lolou waye di deug la waye di yembadi man grand Serigne de Thiès maa wax wax ji